ansubillahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi waa kër yu yonent bi salallaahu taala wa sallam dëkkandoo yi ñu ngi siyaare ñëpp di ekkati suñuy kàddu ci turu alaaji seeni sekk mi nga xamante ne moo fi nekkal sëriñ tubaa xaadimu rasul sëriñ Muntaxa Mbàkke di ñaan bu baax di sàkku itam kenn ku ci nekk dollu ci ay ñaan yal na ko suñ borom yàggal ci gannaaw sëriñ Muntaxa di wax ne daje bi soo leen ko gisee mu doxee ni tey dafa am ndigal lu jóge ci sëriñ bi moom mooy dafa war a ñëw Kaolack yàlla dogal moom mi nga xamante ne nag moo fi nekkal sëriñ bi mu woo ak njabootu boppam waaye woo itam nag taalibe yi tànn ci taalibe yooyu itam tànn ñenn ci ay jëwriñam yu nekk ci dëkk bi ñu ne nañ fi ñëw yëkkati seen kàddu ngir woote bi nga xamante ne da ko fas yéene woote ngir ñu fekk si leen ko gan googu ngan gi nag kenn ku ne xam na nam ko daan doxalee waaye loola suñ ci yeggee dina ko mën a wax ci ay kàddoom nga xamante ne kenn ku ci nekk di ko déggee ci nag ko sëñ bi sante ak ni ko sante bokki taalibe yi kon sëñ xaadim bala ñoo guddal ñu jox la. mbooloo mi ngeen jàkkaarloo nii fas yéenee joxe ay kàddu yu jëm ci ngan gi nga xam ne xalifa général sëriñ mun Mountakha ibnu sëriñ Bassirou war a ñëw Kaolack ñu daje fii si kër représentant bi di Alaaji Seeni Sekk niñ ko daan defe muy wooteb sëñ Tuubaa rek fu ngeen ko gis ci tele mu génn fa baatub sëriñ bee jóg mu woo ñi mu àndaloon ci liggéey bi ñu dajee këram fas yéene waaj ngan gi nga xam ne moom lañ fas yéene ganale sëñ Mountakha ren nag mu gan goo xam ne gii gàtt na waaye gudd na ndax la sëñ Abdou Lahad waxoon rek murid yi ak jullit ñi seeni xol nangu nañ ba bu ñëwoon suba lay ñëwit jekk nañ moo waral bañ ne altine lay ñëwit ñu war fee daje tey samedi ji war ko waxtaane war a waaj ngan gi ndax lépp noppi na ndax ñoom kat waajal nañ ñëpp ñëpp jekk nañ alaaj seeni nag woote fii ñu war fee dajee ngir ngan gi nañ ko daan defee lu ci waay man def ko ba ni sëñ Muntaxa bëgg def ko moom nag jekk na ñi mu àndal it jekk nañ ñu fas yéene nag daayira yi duñ lim kenn waaye mboolem fédération yi ni ci dëkk bi kenn ku ne sawtur xam nga ko woote bi da ko dégg daayira itam muy daayira fu waay sëriñ bu mu mën a doon li tàmbalee sëñ Maodo Moussa ba ci sëñ Mourtala fu fi daayira nekk tey tudde sëñ Touba ñu ngi lay woo si bis bii daayira maam jaare yi ñoom mel na ne ngaan gi kenn ëppale wu ci ndax kat poroxaan la jëm kon daayira maam jaara yeeg daayira yëpp ñu ngi leen di woo ñu fas yéene teeru sëriñ bi ànd ak moom ci ngan gi alaaj seeni nag ñetti fan yi fas nañ yéene buñ xëyee ñu ngi dajee fii lépp luñ mën ci ngan gi dana ko ànd ak bokk yi ànd koog taalibe yi ànd koog daayira yi ànd ñëpp ba ba sëriñ bi yeewi kon alaaj seeni mi ngi ci woo ñëpp ci turu sëñ Muntaxa kon nag mbooloo mi kàddu gi bu ngeen ko déggee nii rek la demee ñii nga gis ñu àndal ñii ñëpp a ngi fi sëñ Babacar ñëwut sëñ Moussa Naawel joxe nañ digal mboolem kilifeef ni yëpp jox nañ digal alaaj seeni ñu ànd ko ñoom ngànt tee ñu àndandoo ñii si tele bi waaye kon ñëpp a fii teew kon nag ah, foofu la ñu yemale suñ kàddu yàlla nañu yàlla dimbale nag ba nii ñu fi dajee ren yàlla nañ fi dajee waa déwén ah sëriñ bi fekkaat ñu fi ci barkeb Seexul Xaddim salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara tey ñaan suñu borom defal ñu tawféex ak ndam ci bis bu màgg bi nga xam ne ci lañ jëm nu daje fii tey nag ngir yëgal mbokki taalibe yëpp ci ndigalul alaaji seeni sekk mi nga xam ne moo fi représentant xalif général des mourides ak mboolem kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ñu leen sër bàyyi seen nee na mi ngi leen di yëgal ne mi ngi am gan goo xam ne gan gënu ko koo màggal ci dëkk bi muy Cheikh Mouhamadul Muntaqa war fee ñëw ni ki altine di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier wii ñu nekk war fee def ñetti fan ni ko aajo ni ko aada woo defee saa suy dem poroxaan ñëw fii fi kawlax gane waa Kaolack waaye bàyyi seen i nee na amul gan gu ko gën a màgg sëriñ Muntaqa mi ngi koy yëgal mboolem jullit ñi di ko yëgal mbooleem taalibe yi di ko yëgal mbooleem koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi te lu baax ñor la mu ngi soññ nag boppam waaye di soññ ñëpp ci ne la sëriñ bi waxoon yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi nee na lool rek lay wax sëriñ bi ndax sëñ bi mooy ngën ji gan te yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim dayfahu képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ngay teral saw gan gan nag yoonu murit amu ci ku gën a ku gën a rëy sëñ kon nag mu ngi ci soññ ñëpp di ci soññ bokki taalibe yi ñu gën a ànd ak dal gën a ànd ak yar gën a ànd ak teggin ndax gan gi ñu am gan gënu ko ci nun kon nag na nu fexe ba diir sëriñ bi di fi ne nu fexe ba yaatal gën a gën a yaatal dënn yi yaatu woon na gën a yaatal xol yi yaatu woon na ku bëgg a ziyaare mën a ziyaar waaye ku ziyaare yi tamit nga may sa morom mu ziyaar nit ñi bañ a ne ci kër gi di di dugg ko génn wala ñuy xat-xatloo wala ñuy xuloo wala ñuy def lenn loo xam ne jaaduwut mbokk yi nga xam ne i tamit seen yitte mooy saa su ñuy defar ay berne di ko indi ci sëriñ bi bàyyi si ni nee na mi ngi soññ ñëpp fu fi daayira nekk ni ko Baye Khadim waxee sëñ Baye Mbaye na waxee ko noonu fu fi nekk ñu coordonné wu ànd ak Baye Seyni ci liggéey boobu ndax moom la ci sëriñ bi jiital firnde ji ma ciy joxe rek bi sëriñ bi ñëwee ten demoon jëli ko ca buntu dëkk ba bi mu nuyoo sëriñ Moussa Nawel wax ko liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def nun dana ma lu ngeen ciy def na ngeen ko wax ak Baye Seyni lu ngeen di def ci dëkk bi na ngeen di mëcc waaye seen wax ko ko ndax moom la fi sëriñ moom la fi Cheikh Mouhamadul Mountakha teg moom moo fi sëñ Touba moom la fi teg kon nag waaye seen i ne mi ngi soññ ñëpp di soññ boppam jëwriñ yaa ngi nii toog sëriñ Babacar mën nañ ko fee wuutu man fee wuutu sëriñ Cheikh Moussa mën fee wuutu ñëpp ci woote bi kon nag ñun ci ñun ñun ci seen kàddu rek la ñuy waxee ci kàddug sëriñ Babacar mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ Cheikh mooy jëwriñu sëriñ Cheikhum sëriñ Moussa ci kàddoom la ñuy waxee sëriñ ji léegi nii di jëwriñ ci liggéey bi Mm, sëñ Ablaye ñoom ñëpp ñu ngi fi bàyyi gàmmoo ngi fi mboo ñu ñi fi neew ñi fi ne wut nañ fi bokki taalibe yëpp ñu xam ne woote bi ñëpp la daj sëriñ bi daal ñëpp ñëpp la bàyyi seeni i woo bàyyiwul kenn na ko ko ñëpp teerul gan gi na ko ko ñëpp teeralal na ñëpp ànd ak dal murit nag yar rek lañu ko xamee woon yar ak teggin akuk dal sëriñ bi loolu rek la bëgg fi nun waaye yu baree bari moom xaw naa man a ñàkk nañ ca lu bu baax noo ngi jéggalu tey woo ñëpp tey xam ne ngan gi mi ngi tàmbali altine ginnaaw suba di le 24 incha allahu ba alxamis bu soobee yàlla sëriñ bi daal di wëlbatiku yegg poroxaan waaye nan xam ne sëriñ bi moom fu mu ne rek ay xéwal rek fay ne le sëriñ Abdoulaat mu baax ma waxoon ne inna alladina ila sarsara qad qasadu ziyaarati faaraqu daareeni aw zaara loolu rek la ñu sëriñ bi faggul ci ngan gi mu fi ñëw ci Kawlax bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika annabi lu mi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bi xadiri asamaat saatika fi kulli waxtin waxin bokki taalibe yi bokki jullit yi ñu ngi yëkkati suñu kàddu tey jéggulu ci toog gi ñu toog ci kaw sëriñ bi toog ci suuf waaye nag dañ ko def ci ndigal rek waaye ñu ngi koy jéggulu bu baax oote bi ma oote bu gàtt la ndax ñi ma jiitu wax nañ li fi war a wax yëpp moo di dañu am gan goo xam ne amuñu amul genn gan gu toll ni moom ci ñun bu ko nit ki waxtu bu ne waxtu bu nekkee nag buy buy sañse la mu gën a rafet la lay lay sol te ñun sëriñ bi mooy suñu mooy suñu taar mooy suñu mooy suñu mooy lépp kon bu fekkee dafay ñëw di ñu gan fii ci Kaolack jëm Porokhane dañ ko fonk nit ki nag lam fonk ñam am la koy wax ñëkkati ñëkkati suñ kàddu di di woo képp koo xam ne yaa ngi ci région Kaolack te nekk ab julit rawatina nekkantal Sëriñ Tuubaa ci ngan gi ñu ni lépp loo tànn waaye mën na ko ci ci xéewal ak ngëneel ak ak ak taxawaay ak nga def ko ci ndax ki koy defal moom jar na ko te itam moom defal nañu li ko war lépp defal nañu ko nii nag bu la defalee la nga war lépp la ko war la la war lépp war ngaa jéem loo ak loo mënut kon ñu ngi wooye ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw yëpp ak euh, imam yi ak jàngalekat yeeg ñëpp ñu ngi leen di woo ci ngan gi ndax ngan la goo xam ne ngan gu màgg la ndax ku màgg màgg moo fi ñëw di di di ñaan nag ci màggu yàlla ak baax yonte barkeb Sëñ waa ak moom mii nga xam ne moo fi ñëw mu ñëw ci jàmm dellu jàmm benn benn tolof-tolof bañ ci am lépp loo xam ne yéen na ko ci ci itam nga xam ne moom dax doxee ne yëpp aw yiw la yàlla ñu ko yàlla defal moom mi nga xam ne moo ko am ci kàttanam ak baaxam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant nag ñi nga xam ne ñoom la ma sëriñ bi booleel ci lépp loo xam ne lu yëngul lu jëm ci lu jëm ci ci yoon wi la ñu mën leen dem dem leen ci dem leen ci bâchine yi lu lu ma ak lu mën a doon rek kon loolu nit ki bu la defee lu baax boo mënul day mën ko sant ñu ngi leen sant ñu ngi ñaan yàlla ànd bi yàlla bu seytaanam benn wàll ñu ngi ñaan sa borom defal nu ci tawféex defal nu ci ngeneen sëñ Moussa yoon ñu ngi lay sant bu baax Mbacke ndax noonu nga toog sa kër rek ne ni mu wuy te itam dañ lay wuy ak xol bu sedd waaye nag lépp bëgg sëñ Tuubaa ak gëm ko ak fonk ko moo tax nga def ko kon moom itam mi nga xam yow moom mi moo tax nga def ko li nga xam ne moom la yor ci ngëneel yàlla bu la ci kenn appelé ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci màggu yàlla ak baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëñ bi ñëw jàmm delloo ak itam liñ lim lim fi indi ci yàlla buñ ci kenn appelé kon nag bokki jullit yi bokki taalibe yi woote bangoog jógee ci alaaji Seyni Seck mu jëlee ko ci jëwriñ ji sëñ Moussa Nawel mu wax ne nag alaaji seeni na na ñu bokki jullit yëpp na bokki taalibe yi nañ teel a ñëw altine ca penc ma. 9h ku xëy rek 9 daal na la fekk ca penc ma mu ngi woo góor di woo jigéen di woo mag di woo daayira maam jaare yëpp waaye nag kenn kuy dikk ku nekk na nga xam ne baat bi sëñ bi joxe ndigal ñu gàttandoo ko mooy baatub alhamdulilah nag kenn ku nekk sax ci naan alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah ba gan gi yegsi suñ koy gunge itam muy dem poroxaan baat boobu rek la suñ yendu fa daal ak suñ fanaan fa yëpp baat boobu la alaaji seeni wax ne sëñ Moussa naawel mooy li nga xamante ne moom la wax ne moom lañ koy gàttandoo ñu ngi ciy son ñëpp di ñaan suñu borom andi ko ci jàmm tem dellu si jàmm waaye nag mu bàyyi ñu jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah